wa mursidan wa fikrati nawwir wa xalbi arshida bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci bis bi di bis bu am solo di ci sant yàlla bu baax moom mi nu baaxe woon nu ko daa fekke tey jii mu moyaan tawfeex ba nu fekkewaat di ziyaara kilifa jataay bi di sëriñ Abdul Wahab ibnu sëriñ Abibu di ñaan yàlla mu dolli ko sàmm ba yéeneem ci liggéeyal sëriñ bi mu defe ko ni mu ko bëgge comme ni ko sëñ Murtada waxee rek waxtaan wi dañ koy ànd ak sëriñ Mamor Mbakke Hamdi mu war a waxtaane wérdul maaquus mooy werdu murit werdu bi nga xam ni mooy werdu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu warda muy werdu wu am solo nag werdu woo xam ni sëñ bi digal na ko mbooleem ñi aju ci moom góor ak jigéen loolu sëñ Mamor dinañu ci indil ay leeral bu baax a baax xamal ñu solos werd ci tasawuf ak werd wi ñuy wax kañ la ko sëñ bi jot fan la ko jote ak ay turam ak version yi nga xam ne am na ci ak yan waxtu lañ koy jëfandikoo ak njariñ yi nga xam ni nekk na ci werdu bi incha allah kon duñu guddal dañuy daal di dugg ci waxtaan wi incha allah di wax comme ni ko sëñ Mourtada waxee képp koo xam ni bëgg ngaa jël ci werdul maaxuus benn ci xeet yi mën nga mën nga ko bindu su ñu noppee incha allah sëñ Abdul dina ko jox képp ku ko bëgg a jël moo xam muy góor muy jigéen ñu jox la ko incha allah kon sëñ Mamor bismillah aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana sax wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp di leen siyaare di leen nuyu bu baax di leen siyaare di ko jël nuyoo boobu ak siyaare bi di ko teg ci loxo sëriñ Abdul Wahab moom sëriñ Habibu mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi di ko siyaare bu baax di siyaare mbokki taalibe yi fi nekk yëpp ak mbokki jullit yi ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñëpp teew nañ ci ci jotaay bi di sof foofu sëriñ maam Thierno daanelee rek di rafetlu bu baax ndaje mu am solo mi nga xam ne ay jullit ñoo ko taxawal ngir sàkk lu baax ngir sàkk yiw ngir sàkku tuyaaba muy jëf ju màgg jëf ju am solo joo xam ne rek képp ku ñu ci woo dañ laa bëgg a dimbali rek moo tax ñu ñu ñu woola ci ndax bu fekkee dañuy wax ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahma fu ñuy waxtaanee gaañu baax ñi yërmande suñu borom day wàcc kon jotaay boobu képp ku la ci woo rek yaa ko ameel ak cant yaa ko ameel ngërëm loo xam ne war nga ko koo war nga koo jotale kon ñoo ngi sant bu baax kuréel gi nga xam ne ñoo taxawal jëf ju am solo ji di ñaan suñu borom defal leen ci tawféex te ñu daje ceeg ngërëmul ngërëmul sëriñ bi ni ko suñ maam Thierno waxee nag tomb bi nga xam ne moom la mbokk yi waxoon ne ñu fàttalante ci mooy tomb bu am solo boo xam ne yitteel na ñëpp muy al wirdul maxuus min allahi bi wasati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muy wirdu wu barkeel wu màgg wow nga xam ne suñu borom moo ko baaxee cheikhul xadim radiallahu anhu ngir mu jottali ko ñoñam ak képp ku bëgg lu baax muy jëf ju màgg di jëf ju réy di jëf joo xam ne yiw wi ak njariñ li ci nekk amul fenn amul mu yemee bu ko defee ci tënk rek ngir waxtu wi xat na te am na yeneen yëngu yu war a am ci barab bi dañuy tënk waxtaan wi rek ci lu gàtt mën nañoo wax rek ci njëlbeen gi ci jëmmi wirde ci boppam ak solo si mu am ci biir lislaam bu ñu noppee ñu wax ci Mawlana Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu yitte ak wàccuwaay bi nga xam ne jox na ko ko bu ko defee nag ji ma mujjee rek ci al wirdul maxuus ci boppam xam ngeen ne wird rek suñu ko waxee ñu ngi ci jublu mën nañ cee mën nañ koo firi firi mu gën a yaatu ak mu gën a xat jëmmi baat bi rek suñu ko waxee ci biir lislaam ci biir jullit ñépp li ci ëpp ñu ngi ciy jublu jaamu yàlla goo xam ne rek jullit bi moo ko jël warlul ko boppam te waru ko woon mën naa nekk koor mën naa nekk ay ràkk yu muy julli mën naa nekk sax sarax bu muy joxe boo xam ne da koy sàkkal waxtu saa bu ñëwee mu ko def waru ko woon waaye moo ko warlul boppam loolu jullit ñépp ci bokk dana am meneen maanaam mu gën a xat ci bu ñu waxee wér di jublu ci jaamu yàlla goo xam ne nit ki ci làmmiñam la koy defee di ko muy ay istigfaar di jéggalu suñu borom yi muy def wala ay takbiir di wax ay allahu akbar wala ay xasbunallah wala ay subhanallah wala yu demee ni ki noonu loolu des na ko woowee wér di muy maanaam moo xam ne moo gën a xat am na meneen nag moo xam ne moo ñu gën a yitteel ci barab bi mooy wér yi nga xam ne suñ borom da koy baaxee borom tariixa yi bëriwuñu bëriwuñu ci ci biir ci biir diina ji loo xam ne ci baat yooyu ma waxoon ci lañ koy jële muy istighfar yeeg salaatu ala nabi waaye day jóge ci suñu borom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci ki nga xam ne moom moom tarixa boobu lu ci mënta ñàkk la ngir kooku doog a moom tarixa mu jox ko ko jox ko ab lim jox ko ak toftale boo xam ne euh, noonu la koy noonu la koy defee bu ko defee euh, loolu moom la ñuy gën a jublu ci wird suñu ko waxee ci biir tarixa yi rek mu doon lu am wàccuwaay bu am solo lool ndax xam ngeen wird rek dafa dugg ci biir zikrullaa gi nga xam ne alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub ak wala zikrullaahi akbar xam ngeen suñu Tuubaa mi ngi wax ci Masaalikul Jinaan naan lépp lu ab murit di saxoo mu saxoo tudd yàlla moo ko gën ci moom wa kullu man saalani fa lii jawaab qabla wala tujaadilu ahla qabla wala tujaadilu ahlal kitaab muy amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al kon jëf ju am solo la ci biir lislaam euh, xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi fonk na ko lool ndax euh, am na fu muy waxee ne lépp loo xam ne euh, gis ngeen ko ci àdduna rek am na mën nañ koo melal ba mel na ak weñ am na lu koy daas ne bu dee xolub jullit nag li koy daas mooy tudd yàlla kon loolu rek fesal na njëriñ li nga xam ne am na ko ci biir dundug jullit bi Cheikh Xalim radiyallahu anhu noonu ma ko waxee noonu la ko fësalee ci ay mbindam yu bari bu ñu demee ci ay maxaaliqul niraan ay masaalikul jinaan yooyu yëpp da ciy fësal solo si nga xam ne euh, wird am na ko mu doon loo xam ne kon suñ borom da koy baaxee sëriñ si nga xam ne ñoo yore mbooloo ngir mu bokk ci ngànnaar yi ñuy jëfandikoo ngir mën a tarbiya seeni seeni taalibe ak seeni waa kër kon looloo tax ba saa bu ñuy lim li ñuy woowee usulu usulu tariixa wala usulu tasawuf muy cosaan yi nga xam ne mënut a ñàkk ci tasawuf faaw dañ ciy boole wér ci tarixa yépp mu doon lu am solo lool ci jullit bi ndax jullit bi koo wird bokk na ci jariñ yi mu koy jariñ yi koy jural mooy dina ko wan ay ayibi boppam mooy dana raxas nit ki dindil ko ay ayibam sëriñ bi nga xam ne mooy taqoog moom di ko wax del def lii del bàyyi lii taqoog wird wi dana tax ba yenn yi mu yi mu war a seexlu yi mu war a ba bu koy seexlu sax du ko tey ba loolu dina dox nii xasida yi di def nit nga xam ne dina dox digganteem ak def na ko sudul noonu ci anam yu yu yu doy waar yu yéeme wérd ci taxawaay boobu lay taxaw euh, mu doon kon lu munta ñàkk ci biir tasawuf amul benn mu tasawif koo xam ne man nga ne ci tasaw yoon tasawuf nga nekk te nanguwoo jël wérd di ko def wérd lu munta ñàkk ci biir ci biir tasawuf la doon lu am cosaan it ci biir lislaam ndax yenn saa salaam mi nga xam ne moo fi indi woon diine ji wax nañ ci ay anam yu wuute yoo xam ne joxe na ay wérd jox ko saxaaba yi nga xam ne ñoom la nekkoon jox na leen ko ci anamu mbooloo tëjoog ñoom jox leen ay baat na leen nañ ko baamu muy talxiin jamaa yi boo xam ne mbooloo la ko def am na ay benn benn tit yu mu ber jox leen ay ay ay ay ay baat yu mu leen wax ñu di ko def ku mel ne Seydina Ali ku mel ne Seydina Omar radiyallahu anhuma ak ñu dul ñoon ci biir ci biir saxaaba yi kon loolu lépp day wane ne rek wird moom lu am cosaan la ci biir lislaam lu munta ñàkkit la ci biir yoonu sufaanke yi nga xam ne ñun ci la ñu nekk te mooy yoon wi Cheikh Xadim radiyallahu anhu xàlloon bu ñu ñëwee ci ñaareelu tomb bi nag te mooy solo si nga xam ne kon moom la ko sëriñ bi joxoon loolu dana neex a tënk lool ndax moom bi mu ñëwee ci biir lislaam ji rek la nekkoon kon lépp lu mu fekkoon lislaam jox ko yitte jox ko wàccuwaay jox ko daraja noonu rek la ci mën a doxe moo tax bi mu ñëwee moom suñ borom dafa def mu feeñee ci njaboot goo xam ne ci yoonu tasawuf la ñu nekk nekk ci atarixal xaadiriya mu ñëw kon nekkub xaadir ne ñoom waaye def ci yitte ju mag bi mu tollee ci war a jël alwirdul xaadir yi mu jël ko ci waajuram sëñ Maam Mor Anta Sali ba mu demee ba ca kanam mu yeesal ko ci ay nit ñu wuute rawatina bi fi sëñ Mor Anta Sali jógee nee na yeesal na ko ci ay nit ñu ñu baree bari yeesal na ko sëñ Samba Tukulóor Ka li yeesal na ko ci kudul moom wax nañ ne sax ginnaaw bi dem na fi ba gànnaar ba ci waa kër Cheikh Sidiya mu mag Cheikh Sidiya al Kabir mu jël ko ci Cheikh Sidiya Baba mi sëtam te nekkoon fi jamono jooju ba way na fa sax li ñuy wax as silsilatul maanaam moom fi mu jëlee wirdu wi ba ni mu àggee ci Cheikh Abdou Khadir Jilani maanaam moom moo ko jël jëlee ko ci diw mu jëlee ko ci diw mu jëlee ko ci diw ba ni mu àggee ci ki nga xam ne moo indoon wirdu xam ngeen loolu lu mënta koy jëlee ba ji wirtuma ba ji wirduma xuus nga koy jëlee war ngaa xam silsila la ko jox ki ko jox ki ko jox ba ni muy àggee ci ki nga xam ne moom mooy borom wirdu yi kon loolu lépp di wane ne fonkoon na lool wirdu xaadir wi nga xam ne ci la nekkoon waaye jéggi woon na foofu sax mujjoon na di jël yeneen wirdu yu dul xaadir yi di ko booleeg wirdu xaadir yi mu yoroon di ko barkeeloo nga xam ne jëlu ko woon ngir ne ay loola la maam jëlu ko ngir bàyyi xaajat gi waaye da koy jël ngir di ko barkeeloo di ko ci dolli boo xam ne sax toll na ay jamono da benn jotaay bi moom sëñ bi mu ne daan naa jamono yoo xam ne benn jotaay bi may toog suba ngoon fu ma fi toogee ñetti wird yëpp dama koy def doog a jokk muy alwirdul xaadir yi ak alwirdu chazali yi ak alwirdu tijaan yi boobu wirdu xaadir mooy dam waaye ñaaree da koy jël di ko barkeeloo yooyu yëpp di wane yitte yi nga xam ne rek Euh, joxoon na ko ko ci noonu la doon wéy nag ba ni mu demee ba ci at mi nga xam ne moom la ñuy wax 1311 muy ay Chine at mu am solo la ci ci dunduk sëriñ bi ndax da cee soppi lu bari ci ci taxawaay bi mu amoon muy at mi nga xam ne taxawaay bi amoon da ko soppi ba ci mbind yi xaside yi sax yi mu bind yi mu bind ci at moomu jëm kaw daa wuuteeg yi mu njëkk a bind ndax waxin wi day wuute daa walbati ni mu doon waxee lépp di ko jëmee rek ci yonent bi sallallahu muy at moom nga xam ne ci lay wax ne ubayyihul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa ne tey kat maa ngi jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab liggéey boo xam ne dama ko ko fas yéene di ko liggéeyal te maa ngi ñaan suñu borom mu dimbale ma ci ba ma matale sart yi ba ma sëkk bi mu ko xasee wax noonu nag ci la wax ne feeg ma fiy jóge dootuma jug ci loolu zaliltu abidan xadiman li rasul min aami ay shachin ila aami rahil ne fas naa yéene kat ci at mii ñu toll muy atum junni ak ñetti téeméer ak fukk benn mooy ñaari at muy dem ci géej gi ne fas naa yéen ba ma fiy jógee dootuma jug ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi di tàmbali nag yi mu doon wax yépp mu soppi ko wirdu yooyu mu doon jëfandikoo mu ñett yi mu daal di koy teg ci suuf génn ci daal di jël alxuraan nee na def ko muy wirdam léegi wax na léegi alxuraan mooy sama wird ci laay defee lépp muy kitaabuhul azizu saara wirda lii wa nafaan bi daaya tarda ne kitaab téereb suñu borom bii léegi jël naa ko def ko muy sama wird daal di wax ne sëriñ si mu doon topp ñëpp daa wut ci ñoom lu baax bis ni ki tey wan na leen ginnaaw dem ci yonent bi sallam daane waaye loolu ni mu demee a jaaxal kenn ndax day mel ni rek ku nekkoon ci guddi di leerlu ci weer wi wala muy leerlu ci biddiw yi ba yàgg bët set jant bi génn bu jant bi génnee dootu soxla yooyu ne jant bi nag mooy yonent bi sallam te jot naa ci kon soxlaatuma leen geneen leer gudul gosam muy zahadani tuluu shamsin an nazar ila nujumi fi samaai wal xamar ne kat jant bi génn gi génn moo tax ba soxlaatuma weer wi ak biddi wi daal di tàmbali nag ci la tàmbalee jël yonent bi saa def ko muy sëriñam baa baana li kulli man lahu maxulu anna wasilati huwa rasulu képp koo xam ne am na dara ci xel xam na ne kii sama wasila dama àggale suñu borom mooy yonent bi saa du keneen ñuy dégg muy woowee yonent bi saa sallam cheikh ak yooyu yëpp ci ay mbindam ne yonent bi saa mooy ab sëriñam bàyyi lépp lu jàppoon daal di kon soppi anam gi doon doxee xam ngeen jamono jooju ci la njëkk a gis yonent sallam ci Touba nga xam ne sëñ Bassirou mi ngi wax ne bi mu koy gis ci lu mel ni ab rideau lañ doxalee seen diggante euh, ñu waxante fa lañ waxante mu gën a feddali laxasaayam donte mosu cee jóg gën góor góorlu gën a sóobu ci yoon wi ngir lim doon wut loolu rek moo ko mën a may. daa di tàmbali dox ci noonu ba ni mu demee ci géej gi ak yi ca xew yépp ba mu jotaat wirdu yooyu jëlee ko ci yonent sallam seeni borom joxaat ko ko mu ñibbi moom sëriñ bi jóge ci géej gi. bi mu ñëwee ci jóge ci géej gi xam ngeen yàggu fi tuuti ñu yóbbu ko gànnaar gànnaar googu nag fa la jotee ci wirdu boppam yi kon loolu mooy tomb bu mujj bi ci waxtaan wi te mooy al wirdu boppam nag mu jotee ko kon ci gànnaar googu ba mu fa demee muy at mi mu fa njëkk a dem muy atum 1321 moom la sëñ bi di woowee ama shahid naa karaman ama shahid naa karaman araf yooyu soo ko boolee dajale ko vingt 1321 la lay jox mooy ba mu fa demee rek sëñ baa nga fa dem ci gàmmu gi ca weeru koor ci la jot alwirdul maxuus laata mu koy jotit doon na ko doon na ko séntu am na ñu ko jege woon ñoo xam daan na leen wax na leen dafa am lu ko suñu borom dikk ku mel ne si am satu jaxate nee na sëriñ bi mas na ko romb muy bind mu ne ko na nga ma ñaanal kat ndax dafa am lu ma suñu borom digoon na nga ma ñaan ma joti neen ba ma ko naan ah a ñaanal de xanaa loolu yaa koy def ci man kon waaye teguñ ci ab diir nee na mu romb ko ne ko la ma suñu borom digoon loolu jot naa ci ñu ne ci biir koor gi la ko jot waaye ba ñu waree nag ba am juróomi fan di bis bu àjjuma ci la ko njëkk a jël jox ko jox ko taalibe xam ngeen ki mu ko njëkk jox sax ci ci waa gànnaar la bokk kon loolu yépp di jëf ju rëy sëñ bi daal di duggaat beneen bunt bu bees xam ngeen loolu mooy fukki at fukki at ginnaaw ba mu ba mu jàppee ci yonent bi sallam sëñ bi njëlbeeni fukki at yépp boo ko toppee muy achachine muy ay chachine muy ak chachine muy al chachine muy am chachine day am ay ay aqabaat yu bees yu muy yu muy yu muy yu muy jéggi maanaam day am yeneen page yu bees yu muy ubbi ci biir histoire am xëy na loolu du biir waxtaan wi jëluñu ci xóotal waaye ni nga xamee ne bi mu tollee ci 1311 ubbi woon na bunt bu bees dellu ci Yonent bi sallam ne bàyyi na lépp lu dul moom bi mu ñëwee ba 21 muy fukki at ginnaaw bi ci la ko Yonent bi sallam jox wirdu boppam mu am léegi tarixa bu mat sëkk boo xam ne léegi li gaañu baax ñi am lépp baamu tarix am na ko muy lu rëy loo xam ne. ñun ñi nekk fii danañ ko miin waaye yombut yombut nit ku ñuul maa ngi jégalu ci baat bi sax dara newut ci ñuul waaye li ma bëgg a wax rek mooy ci gox bi ñu ne gox bi ñu ne nit ku baax yàgg na fi ñi fi xeexal lislaam bari nañ fi jàmbaar ñi ku leen doon lim doo jeexal waaye am sa tarixa bopp ci Sëñ Tuubaa ko njëkk a déggee ko ci keneen mooy ku jëlee wird ci Yonent bi sallallahu alayhi kenn doxu ci diggante bi nga xam ne mag ñi sax nee nañ bi mu jotee daana leen wax ne leen lan yatuula sanadukum na ngeen xam ne buum gi leen di taqale jokkale sa sallam du gudd bu ngeen jàppee ci wirdu maaxuus bi ndax da ngeen naan man mii ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yeneen tarixa yi fi nekk yépp boo doon lim ay juróom nangam ngay wax doog àgg si borom tarixa bi mu ne leen dangeen naan man ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy kon jëf ju rëy joo xam ne bi mu ci jotee tàmbalee sant suñu borom gis ngeen ba ci wakkaana xaqan muy junj yu muy junj yu mel noonu samadu samadu xal awsaltali fi ramadan maa runtu min ka xablahu bi fayadaan di ko junj ne ko la nga ma diggoon jox nga ma ko ci biir weeru koor wi te sotti nga rek mu mu dem ngir xewal yu bari kon loolu di jëf ju rëy xam ngeen rek sëñ bi day junj ci yoonu gànnaar woowu ne yoonu gànnaar bi kat képp ku jàpp ne dañ maa génne nañ ma génne woon rek bañ may yóbbu nga Gabon mooy yow xamoo li xew euh, ne lam yakku sayru ak sasin siwa jaza man liya xaala du wax an jaza ne yoonu gànnaar yi li ko waraloon rek mooy suñu borom daa am lu mu ma digoon bëgg ma koo defal man li xaada baadu waadan an jaza dafa am lu mu ma lu mu ma lu mu ma lu ma digoon rek bëgg ma ko jox moo tax mu ñu yóbbu woon ma gànnaar moo tax ba mu àggee ci at mu njëkk mi ci la jot ci la njëkk jot bi mu njëkk jot ci alwirdul maxuus bi mu ci jotee it moom siñ bi mu doon lu mu fonk lool jox ko wàccuwaay lool bind ci këyit bi mu njëkk a génne ne lii kat mooy wirdu wi nga xam ne jaamu yàlla bii di liggéeykatub yonent bi sallam di ahmad ibnu muhammad ibnu habibillah moom la jëlee ci boromam mu jaaree ci yonent bi sallam daan ne mi ngi koy jëfandikoo te it mi ngi digal mbooleem koo xam ne ci moom nga aju ngay góor wala ngay jigéen ko aju ci moom te yàlla rek tax mi ngi lay digal na nga jëfandikoo yoddu wi ne wastaamalahu wa amara almutaalliqiina wal mutaalliqaati bi azyaalihi li wajhi llaahi taala al karim bisticmaalihi muddata muksihim wa muksihinna fi dunya abadan bila tafritin anhu abadan muddata muksihim wa muksihinna fi dunya bila tafritin anhu abadan nekkat wirdu wi mi ngi koy jëfandikoo di digal mbooleem ku ne ci moom nga aju moo xam góor nga wala jigéen nga ñaari baat yépp la jëfandikoo bu noonu mutaalliqiin ñi aju ci moom ñépp danañ ci dugg waaye bëgg mu gën a leer moo tax mu ne al mutaalliqiina wal mutaalliqaat ñi aju ci moom tey ay góor ak ñi aju ci moom tey ay jigéen digal na leen wirdu wi nañ koy jëfandikoo kon li ci njëkk li ci mat a njëkk jàpp foofu mooy wirdu Maaxuus moom ndigal la loo xam ne amul benn morit benn murit bu ñemee yëkkati loo xam ne bu duggoo ci ndigal la képp ku ne Sëñ Tuubaa mooy sa sëriñ Sëñ Tuubaa digal na la wirdu Maaxuus te mooy lu mu wax ne moom mi ngi koy jëfandikoo te mi ngi koy digal mbooleem ku ne ci moom nga aju nga di ko jëfandikoo muy lu rëy teraanga ju mag di ko suñu borom defal joo xam ne teraanga mënu ko féete kaw ci biir yoonu tasawuf ci biir yoonu tasawuf daraja ji ci gën a màgg gi ci gën a màgg mooy nit ki am tariixa bëri na ay kàngam yu mag yu ñuy dégg fii yoo xam ne am nañ ay mbooloo ba ami tur te la ñuy wax sax du tarixa ay farax la ay daawaat la ci biir tarixa yi ñu nekk xam ngeen tarixa rek bëriwut ci umma islamiya fi mu ne tarixa yi bëriwuñ ay woote ci biir tarixa yi ñoo bari ci yoonu tasawuf li ci gën a màgg ci luñ mën a xam ci daraja ñu mën a woowee nit mooy ne diw am na tarixa boppam Cheikhul Khadim lool di may gu mag gu ko sëñ Tuubaa gu ko sëñ borom may ne dafa dolli ko ci yu bari yi nga xam ne moom la ko may kon li ci mat a njëkk jàpp foofu mooy ndigal la loo xam ne sëriñ bi digal na ko murit yëpp bépp murit boo xam ne nekk nga mu kallaf ndigal li agsi na ci yow képp koo xam ne mas mën nga mus kallaf rek ndigal li ci nga bokk muy góor muy jigéen wird wi nag ci ñi xamul lu mu doon ay baat yu ñuy jàng la ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi ay baat yu ñuy jàng la yoo xam ne dara génn ci alxuraan ak sunna muy istigfaar di tuubal suñu borom salaatu ala nabi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam hayla la muy wax laa ilaha illallah xasba la ak yu demee ni ki noonu yu yooyu noonu rek nga xam ne mooy usul awraad yi ci yoon tasawuf yëpp wirdu woowu suñ borom joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jox ko sëñ waa wirdu wi loolu la moom nag wirdu maaxuus dafa am ay xeet am na ñetti xeet yu bokkut am na bu ñuy wax xafiif boobu mooy bi mu njëkk jot ci weeru koor woowu nga xam ne ci la njëkk a dem gànnaar mooy xafiif tur bi dëgg mooy alxisbu rafia allazi min anniraani xirsun mania wali duxulil jinaani azamu shafia lool mooy tur bi dëgg-dëgg ñu koy woowee xafif euh, moom la sëñ bi jot ci weeru koor woow mu demoon gànnaar bañ demee ba ca wee ba ca weeru gàmmuwa ci at ma ci topp muy ama shahid naa bi karam xam ngeen at mu njëkk mi ama shahid naa karaman la koy woowee 1321 at mi ci topp moom la woowee ama shahid naa bi karamin muy 1322 alif gi la sopp ak baa loolu ay yeneen yeneen junj la yu muy junj ci ci ci ci biir ci biir mbir yi ci may yi moom ci la jot beneen bi ñuy woowee kaamil am na beneen bu ñuy woowee xaatim mooy ñetteel bi xam ngeen xafif boobu moo gën a tasaaroo sax xëy na jombul lim njëkk génn moo tax mu gën a tasaaroo ak it sëñ bu mag bi sax na ko boppam am na téere yu mooloon ci atum 1925 yu ñu moolee moolee woon ci bitim réew wirdu Maaxuus gi ci la bokkoon loolu lépp ngir bëggoon mu tasaaroo ci biir njaboot gi yemut foofu gànnaar googu ba mu ko jotee da ko yónnee Sénégal ay kilifa yu bari ngir ne leen lii lu fi suñu borom indi la nañ ko jël te nañ ko jox jabar gi ñu nekkal ku mel ne sëñ Mbàkke Buso ñoom ku mel ne sëñ Mamor Jaara ak yenn ci kilifa yi nga xam ne ñu woon ci biir réew kon solo soos la ko sëñ bi joxoon ci bëgg mu tasaaroo ci biir njaboot mooy di ko jëfandikoo digal ko ñëpp nekk gànnaar yónnee ko sax ñu nekk Sénégal ne leen nañ ko jëfandikoo négul sax ba ñëw fa kon ñetti xeet yooyu la am muy xafiif bi nga xam ne ci wàllu guddaay bi nii ñetti xeet yooyu leen wutale mooy euh, li ñuy jàng moo wuute waaye amul bu benn bu ci gën a nekk wird maaxus moroom jiit bu ci jawaay jël rek wird maaxus koy def xafif bi moo ne ci digg bi ci wàllu guddaay kaamil moo gën a gudd xaatim bi moo gën a gàtt waaye ñoom ñett ñëpp nag danañ leen woowee wirdu maaxuus kon ñett yooyu mooy xeet yi muy wirdu woo xam ne it dafa am wirdu ay waxtu yu ñu koy jàng wirdu Maaxuus dafa am waxtu yu ñu koy jàng mooy bis bu set nit ki dana ko jàng ñaari yoon benn yoon ci suba gi benn yoon ci ngoon gi noonu lañu koy jàngee benn yoon ci suba gi benn yoon ci ngoon gi nit ki nga xam ne dafa jël xafiif da koy jàng ci suba gi ak ngoon gi kaamil noonu bu dee xaatim kese moom lay def it noonu la ko def suba gi la koy jàng ak ngoon gi léegi nag ni nga xamee ne julli dafa am waxtu lu ñuy wax muxtaar muxtaar bi mooy waxtu wi gën ku amul ngànt ci la def am leneen lu ñuy wax daruri mooy ku am ngànt ci waxtu wu njëkk wi man bu ko defee ci waxtu wee ba léegi mi ngi ci biir waxtu waaye waxtu wu njëkk wi moo gën yi wow nag fu mu jeexee moom dañ naan waxtu wi jeex na léegi dafa too jooxe waaye da ngay fay suba gi ak ngoon gi lu ci nekk dafa am waxtu wi fu mu tàmbalee ak fu mu yem foo xam ne fi mu yem boo fi defoo ko waxtu wi moom jeex na da koy fay da koy fay nag moom waaye waxtu wi jeex na suba gi mu ngi tàmbalee ci bu bu njël jotee njël ba ba ñuy àgg ci zawal mu zawal daanaka mën ngaa jàpp ne mooy bu tisbaar desee lu jege 30 minutes wala yooyu du ko sori loolu mooy mooy mooy mooy waxtu suba gi waaye nag li ci gën mooy muxtaar mi muxtaar mi ngi tàmbalee ci njël ba ba jant bi di fenk loolu mooy muxtaar mi kon ku ko mën bu jullee suba ba noppi rek mën na koo def na def kem kàttanam daal ci def ko balaa jant bee fenk su amee ngànt nag fu ngantam jeexee mu def ko waaye na fexe def ko ci biir waxtu wi bu dee ngoon gi it moom mi ngi tàmbalee ci buñ ñu tàkku tàkkusaan ba ba jël di jot loolu lépp ci ngoon gi la bokk waaye waxtu bi ci gën te mooy mi mooy bu ñu noddee tàkkusaan ba ba ñuy noddu gee kon fi mu ne bu ñu noddee tàkkusaan ba ba gee di jot lépp yaa ci biir muxtaar mi waxtu woo ko fi defee yaa ngi ci biir waxtu wi nga xam ne mooy wi ñu gën a taamu su dee dafa xat ci yow nag mën nga ko def diggante gee ba ba njël di waxtu yaatu la woo xam ne lu nit xat-xat mën na ko def nit ki nga xam ne day liggéey ginnaaw taksaan mu xat ci moom it mën naa bàyyi ba ginnaaw timis rek mu def ko kon waxtu yi noonu rek lañ koy xaajee suba gi fu tisbaar jotee jàppal ne waxtu wi jeex na danga koy fay ngoon gi fu fajar jotee jàppal ne jeex na da koy fay noonu lañ koy séddalee euh, ci képp ku jëfandikoo benn bu nekk ci yooyu léeg-léeg nag nga gis koo xam ne mën naa jëfandikoo xafiif mooy bi bi ci digg bi boole ko xaatim bi gën a gàtt wala kaamil bi gën a gudd boole ko xaatim bi gën a gàtt su dee loolu moom beneen jëfandikoo la koy def mooy xafif wala kaamil da koy def suba ngoon rek xaatim lay jël moom di ko def ginnaaw tisbaar ginnaaw timis ak ginnaaw gee ni ko sëñ Mat Lamin waxee ci ay mbindam su dee benn rek la ci jëfandikoo nag moom suba ak ngoon rek la koy def suba ak ngoon kon loolu mooy lu jëm ci ci wàllu waxtu yi képp ko xam ne am na ci bor nag moom da koy fay rek ndax li ñuy wax al wirdu kasala julli ak wirdu ñooy am ndax nit ki da koo jël def ko nazar ci boppam maanaam da ko warlu ci boppam kon bu ci amee bor rek da koy fay waaye du lu gudd lu jafe jàng euh, xafif bi nga xam ne moo ne ci digg bi ci wàllu guddaay bi maanaam kaamila ko ëpp te moo ëpp xaatim euh, xafif boobu moom mënees na koo def ci diggante lu yées ñaar fukki minute daal moom mën na ko yées ci ñi nga xam ne seen seen làmmiñ taxul mu gaaw mën nañ ko def ci ñaar moom wala lu ko yées kon ñaar fukki minute ci suba gi ñaar fukki minute ci ngoon gi loolu moom ku yàlla dimbale mën nga ko nag ku yàlla dimbali mën nga ko te du la yàqal dara ci ci ci sa ci sa yitte euh, wirdu wi nag am na ay njariñ yu bari yoo xam ne sëriñ bi wax na ko ci bala maa ñëw ci loolu rek mën na ma jaar ci lu gàtt ci ay charte yi nga xam ne yu ci mënta ñàkk la bu ko nit ki bëggee jël charte yi nag yu mat a bàyyi xel la ndax mel na ne seytaane bi mu xoolee gis ne mbirum sëriñ bi mënatu ci dara tam xam ne it ku jël wirdu yu mucc àdduna ak alaaxira loolu amul sikk ku ko jël mucc àdduna day def lu mu man kon te seytaane du noon buy baax day fexe ba ñàngalal ko nit ñi ba nga xam ne bëri na ñoo xam ne boo leen waxoon wirdu maa gis ñun la charte laa ragal te boo leen laajoon charte yi sax duñ la mën a wax lu leer ndax xamuñu ko wirdu maaxuus amuti charte daanaka amuti charte man nga ne ñetti mbir ñetti mbir ñooy charte yoo xam ne yu munta ñàkk ci wirdu maaxuus la yeneen yu dul wirdu ma yu dul yooyu kii jël wirdu week murit bi ko jëlu ak jullit bi dul murit ñoo ci bokk yam kenn ci ñoom sañu koo xët ñett yi ci mënta ñàkk mooy yii mooy nit ki faaw mu jël ko ci ndigal mooy wirdu maaxuus kon doo ko tele saate ci internet bi rek tàmbali koo def wala nga fekk fu ñuy wecc ko ay xasida nga wecc ko ko tàmbali koo def soo koy def yaa ngi def lu baax ndax ni ma ko waxee woon ay aaya ci nekk ak ay julli ci yonent sallam ak jéggal suñu borom sëñ bi nee na képp ku koy jàng ci lu dul ndigal yaa ngi def ak jaamu yàlla te wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun daane waaye njariñ liñ ci seenu dëgg nag ngir nit ki am ko faaw mu jël ko ci ndigal mooy faw nga jël ko ci ndigal ñaareel bi mooy ki la koy jox faaw mu doon ku ko sañ joxe du doon ku sant mbàkke rek wala ku sant neneen nu mu mën a doon nga ne ab sëriñ la rek nga dem mu jox la ko déedéet day doon koo xam ne moom am na ndigalul joxe wirdu ndax ñëpp amuñu amuñu ndigalul joxe ko nag mën ngaa gis ko am ndigalul jëfe ko sax te amul ndigalul joxe ko kon da nga koy jël jël ko ci ku ko mat a jële ñetteel bi nag mooy nga di ko jàng ñaari yoon bisu set mooy suba gi ak ngoon gi ñett yi dong mooy charte yu ñàkk ci wirdu maxuus amut bu leen ñeenteel amut yeneen yi ci topp yëpp dinaa ci jaar waaye da ngeen gis ne buñ ci tudd rek ñoo jullit ñëpp ñoo ko bokkale yeneen charte bi beneen charte bi ci topp mooy bëgg nañ képp ku koy def muy jàng alxuraan bisu bu set kem kàttanam mooy lu man mu jàng ko ci alxuraan loolu nag takkuñu ko fenn ku mën a jàng benn isib mu def ko koo xam ne lu ko yées la man mu jàng lim man ku mën a jàng juróomi isib mu def ko ku mën a jàng ñett mu jàng ko loolu xam ngeen ne jullit ñëpp lañ digal jàng alxuraan wirdu maaxuus daf koo feddale rek bëgg jullit bi ko def waaye jullit ñëpp lañ ne bis bu set na ngeen fexe ba jàng alxuraan beneen charte bi mooy nooy muy julli ci mbooloo su ko manee ñi nga ci ñi nga xam ne ay góor la jigéen ñi bokkuñ ci charte boobu góor ñi ñuy jullee ci mbooloo buñ ko manee loolu it xam ngeen ne lislaam moo ko digal ñëpp yéen sama sama àggoon na ci ne sama xel a ngi woon ci kat bis ma digleen leen nañ julli nañ nodd bañ nodd ba ma ne nañ taxawal buñ li xaamee ma ne kenn demal jiite daal topp kër yi di leen wër ñi ma fa fekk julli si wuñ ma taal kër yi ci seen kaw ngir soññee ci ne dañoo war di ñëw ci julli mbooloo kon wird wi day soññee rek ci nañ julli julli mbooloo waaye loolu dafa fekkoon lislaam digal ko mbooleem jullit ñëpp ba noppi julli mbooloo it ñu xam ne ñaar bokkut julli mbooloo ak jullee ci jàkka julli mbooloo moom dañu wax ne isnaani famaa ma jamaa maag sëñ maam Thierno mi bu ñu àndee di julli rek am nañ mbooloo ñun ñaar bu ñu àndee rek mbooloo la dem jàkka nag dafa ëpp tuyaaba ndax ku ne xam ne ne jàkka dem bi ak ñëw bi yonent sallallahu alayhi wax na ne jéego boo jéegee bi dañuy lay sa ba dañuy lay jégal bàkka faral bàkkaar nga jéego beneen yëkkatil la ci daraja maanaam bind la ci tuyaaba kon nit ki di julli julli mbooloo su ko manee loolu ci sart yi la bokk sart la boo xam ne it ku ko mënul mu wàcc ko ndax wirdu wi dafa fekkoon mu war jullit ba noppi bëgg na it bis bu set muy naafila guddi ni ñuy naafila koor maanaam li ñuy wax tahajjud mu dugg ci buntu xiyaamu layl bis bu set bu ko mënee na naafila fukki rakkan yoo xam ne lu mu mën rek la cay lu mu mën bu dee ko mokkal alxuraan teg ca warteem ko mu jàng rakk bu ne mu jàng ca ruban ne fukki rakk yi kon ñaari isib ak xaaj lay doon loolu la ñuy jaawalee ba naan kuy jël wirdu maaxuus da ngay jàng ñaari isib ak xaaj ci ne na ci ngànt wàcc na ko sëñ bi sax am na fu muy euh, jàng lu mu mën donte rakk bu ne ñetti lixlaas la ci jàng maanaam rakk boo jàng jàng fatiha ak ñetti lixlaas si siggi def beneen boo amee ñaar rakk sëlmal ba mat fukk nga def safa ak witr loolu soo ko mënut tamit nga def li nga man ndax loolu ku ne xam ne nit julli naafila guddi julli ñëpp lañ ko digal wird wi da koy feddali rek it mu wut ay àndandoo yu baax yoo xam ne danañ ko soññ ci lu baax duñ ko xëcc jëmee ko ci ab safaan loolu it ñëpp lañ ko digal jullit ñëpp lañ wax ne nañu wut ay àndandoo yu baax ndax euh, koo àndal rek mu mu mu wàll jikko kon yii yëpp ak it bii nga xam ne moo ci mujj te mooy mu xam lu ay farataam nag lépp lu jëm ci laab àttey laab julli pas-pas digganteem ak boromam loolu kuy jël wird wi dañ koy wax ne ko na ci góorgóorlu kem kàttanam ba xam ko loolu it xam ngeen ne euh, jullit ñëpp jullit ñëpp loolu farata la ci gu gàllu ci seen loos mooy ñu xam seeni farata ndax bu ñu ko xamul duñ ko mën a def mooy lu jëm ci laab àttey laab julli koor pas-pas loolu jullit bu ne rek da ko xam lu ko da ko war kon loolu wirdu maaxuus da koy feddali rek waaye ku jëlul wirdu bi it xam lu say farata dafa war ci yow ak nag yeneen yoo xam ne ay teggin la ci wirdu wi mooy képp ku koy def teggin yi moom lim ci gën a jariñ mooy ku ko defut duñ ne wirdu wi yàqu na waaye def gi day tax mu gën a gaaw a gis njariñ yi lu mel ne bu koy def mu jublu penku mu jublu penku istiqbaalul xibla bu koy def mu teewlu kem kàttanam def li ñu wax istimdaad te mooy tëbblu mel ni jàpp ne fii ma toog di wirdukat sëriñ bi sëriñ bi mu ngi fii sama wet toog loolu ku koy def ci xolam jamono ji muy wird ngeen dana gën a teewlu ak nag euh, buy toog mu toog toogaayu ku mel ne kuy julli wala maanaam buy julli buy taayee ni muy toogee mu toog banki tànkam noonu wala mu ferenkulaay ñaare bu mu ci def baax na ak wattandiku jamono ji muy wird lépp loo xam ne rek lu mën a fàbbi xelam la jëmee ko ci leneen kon di wirdu di seetaan télé wala yor sa téléphone di nekk ci whatsapp beeg yooyu yëpp jamono ji ngay wirdu moom dangay bàyyi yooyu ba wirdu ba noppi ndax day këf sa xel jëmee ko ci leneen soo ko doon def ci nii xay na yàqul wirdu yi waaye njëriñ li tax ñuy wax dëgg-dëgg nag mën nga koo yéex a gis soo ko dee def ak su ko mënee it weer wu dee mu def sunna si nga xam ne moom lañ moom moom moom la nit ñu baax ñëpp baaxoo def te mooy weer wu ne nga woor ci ñetti fan ni ko sëñ fi kulli shahrin saw ma addi xar fi jéem euh, loolu ci ay sart la rek yoo xam ne ak i teggin yoo xam ne képp ku jëfandikoo wirdu wi war na koo jëf kon ci tënk sart wirdu maxuus ñett yooyu rek la mooy danga koy jël ci ndigal ki la koy jox sañ koo joxe nga di ko jàng ñaari yoon ci bis bi loolu rek mooy sart yi ci munta ñàkk yeneen yu yooyu yeneen yu yooyu jullit bi kam kàttanam la ciy doxee rek am na sax ku ne woon laajoon na ko sëñ Saalix radiyallahu ne ko man bëgg na maa jël wirdu maxuus waaye dama ko mënut nee na sëñ bi daal di muuñ ne ko da ngay jël wirdu yi sart yi nga ci mën nga def ko yu ñu ci mënul nga bàyyi ko jëlal wirdu bi rek sart yi nga ci mën nga def ko yu ñu ci mënul nga bàyyi ko ndax dafa xam ne wirdu bi li muy jëriñ nit ki mooy mu dem ba matale sart yi ñu wax yépp kon lu normal la ci njëlbeen gi jullit bi du ko mën a matale waaye su muy suy jël wirdu bi li mu koy jëriñ mooy day mujj def ko jullit boo xam ne day man a day mën a matali yi ñu wax yépp ci naafila ci jub ci julli ci mbooloo ci jàng alxuraan ci jëf lu baax ci ëmbal ñëpp aw yiw ndax yu baax yi dañuy xëccante dañuy wax ne nit ki bu bëggee makaarimul axlaaq jikko yu rafet yi day xool benn rek xëcc su taqoo ak benn rek day gis ne beneen bi day ñëw dañuy wuysante ba day mujj yépp nekk ci moom kon ci tënk loolu mooy sart yi nga xam ne moom it yu munta ñàkk ci wirdu maxuus ni ma ko waxee ñett yooyu rek mooy yi nga xam ne moo ci moo ci munta ñàkk ngëneel yi it bari na lool waaye murit bi na fexe ba bu koy jëfee na ko jëf te yàlla rek tax maanaam la ko jëf ngir ñaar yi bu njëkk bi mooy na ko jëf ngir jaamu yàlla ñaareel bi it na ko def ngir jëfee ndigalu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ngir moo ne digal na ko ñëpp na jiital loolu leneen lu ko ci fekk ci ngëneel ak njariñ mu doon lu ci dolli ko xam ngeen sëñ bi am na fu mu wax ne bokk na ci njariñ yi biddu bi ne wa min fawaidihi anna man daawama alayhi laa yashqa abadan bal yakunu ala xayrin wa afiya muminan musliman muhsinan ne bokk na ci njariñi wirdu wi képp koo xam ne mi ngi koy jëfandikoo du texee di mukk du texee di àdduna du texe di àllaaxira te dana dana nekk jullit bu mat sëkk jullit boo xam ne diineem dana mat sëkk ci li ñuy wax imaan ak islaam ak ihsaan am na it feneen fu mu wax ne képp ku inna man waazaba alayhi maa shurutihi yadxulul jannata bi gayri xisaabin wala iqaab wirdu wi day képp ku taqoog moom te sàmmoonteeg sart yi da nga dugg aljana te kenn du la isaab kenn du la mbugal wa yamnaahu llaahu min al makaarihi fi dunya wal axira képp ku koy jëfandiku it suñ borom dana dox sa digganteeg mbooleem lu ñuy ragal àdduna ak alaxira wala yaqrabuhu shaytaanul wala yaqrabuhu shaytaanul marid saytaane kuy jëfandikoo wirdu maaxuus dalay sori du la jege fenn lii may wax sëñ bee ko bindee nii wa yak daan ne wa yakfi hada al wirda shari wa yakfi hada al wirda min asharafi annahu yugni an kulli wirdin wala yugni anhu wirdun ne wirdu bi na ko la gënal lépp lu nit di wuti ci wird suñ borom def na ko ci biir ci doom wi te am na lu ci suñ borom def loo xam ne keneen du ko fekk feneen kon loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci wirdam wi ñaan suñ borom ba tàyyi na ko ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo na leen defal yiw na leen defal tawféex allahuma bi xaq wacillaahi taala alkarimi habli kulli man amila bi hada al wirdi maa yarbiduhu bihi gayruhu fi dunia wal axira na ko suñ borom maa ngi lay ñaan nga maa ngi lay ñaan nga nga nga defal képp koo xam ne mu ngi jëfandikoo wirdu wi na am lu ko ñëpp di ñee àdduna ak alaaxira xam ngeen sax ci xasid ak euh, wadudu kulli abadan bil di mu ngi ciy wax euh, uktub liman axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaaban laa yi maa ngi lay ñaan yow suñu borom kat yow mu tedd mi képp ku jël sama wirdu wi di ko jëfandikoo nga defal ko yool bu dul jeex euh, yool boo xam ne du am fenn fu mu yem kon loolu yëpp ay njariñ la yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko ci ne njariñu lu ne wirdu maxuus amal na amee na noonu njariñ mag ñi wax nañ ne borom na faxaat wax na ne keroog bi ci sëñ bi jotee dajale na leen ne leen kat képp koo xam ne yoroon na wenn wird lu jiitu tey jii te mën koo booleeg wii na leen booleel ndax xam ne nuur na ala nuur la leer gu tege ci kaw leer la ku yoroon weneen wu mën a yor bu ko mënee booleeg wii na leen boole daan leen waaye nag képp koo xam ne mënu leen a boole nayam ci wii ma leen jox tey ndax yurni an kulli wirdin wala yurni an wirdin suñ borom lépp defal ma ko ci du ngeen ko fekk ci weneen wét moo tax sëñ Basiiru sax gis ngeen foofu muy wax fa jamaal kulla wa zaada wartaqa bi muxka bi muxkamil kitaabi ni'ma murtaqa fa in axasda wirdahu axasda wirdal jamii laa taxaafu kapta ne suñ borom kat dajalal na ko ci mbooleem yi nga xam ne moo nekkoon ci yi ba dollil ko ci leneen ne yow miy jëfandikoo wirdu wi na nga xam ne kat soo yoree wirdu sëriñ bi yore nga wirdu nit ñu baax ñëpp bul tiit dara bul jàq dara dara rëccu la ci baat boobu rek mën nañoo wax ne daal wirdu maxuus mooy may gu rëy gi nga xam ne suñ borom baaxee na ko sëriñ bi muy ak jagle ci moom goo xam ne kenn fekk ko ci yónni sama sam jox ko ko jaxaran ci loo xam ne du ay nelaw yaqazatan laa maanaam ni mu koy waxee ngir mu jottali ko ci waa këram muy ay góor muy ay jigéen muy loo xam ne it dara luñ ciy ragal amu ci wirdu maxuus waxtu yu ñu koy def guddut amut luñ naan nit ku koy jëfandikoo baa dara du la ci fekk ku koy jëfandikoo jàmm dong nga la ciy fekk leneen du la ci fekk bokkute yi ñu naan ku koy jëfandikoo baa doo mel nii ak baa doo mel ne loolu amul ci biir dama xuus ndax mbooloo mépp ko bokk te it xanaa ku ko jëlagut waaye moom jël ko ba ko moom néew na lu muy am néew na bu ko junni nit jëloon juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak nangam yi moom saa bu ñu xëyee dañ ciy gën a soobu ndax doomu adama dafa bëgg njariñ te lépp lépp njariñ la kon euh, ci tënk rek loolu mooy li nga xam ne moom lañ ne nañ ko ci wax di wax ne képp koo xam ne jëlagu ko woon na def kenn kàttanam ci gaaw ko jël Euh, sëñ Abdul Wahab mi ngi fi sëñ waa sëñ Abdul Wahab mi ngi fi mu sëñ Habibu képp koo xam ne rek bëgg na ko mën naa jokkoo ak mbokk yi moom mu mën ko ko jox wala moo dem ndax lu baax it euh, kenn du ko xeeb di sant bu baax nag mbokk yi nga xam ne ñoo taxawal lii di rafetlu bu baax seen yëngu ndax lii ñuy defal sëriñ bi lu am solo lool te mooy di ko xidmaal euh, di ko xidmaal te ci li ñu koy xidmaale mooy dajaloo di def ay bisi xasida te xam ngeen ne xasida mooy mooy lépp sëriñ bi xasida mooy euh, liggéey bu màgg boobu nga xam ne moom la doon liggéeyal euh, suñu borom ak yonent bi saa salaam bay wax ne faraxtuhu bi xidamin la saaniya laha min al xidami laysat faaniya defal naa ko liggéey yoo xam ne du jeex mukk te kenn doon ko defal lu mel noonu euh, wax ba wax ne mulkul alil baaxil xadim jaala ni asna xadim liman lahu faddun yadum wasaana ni fil xidami muy kon Euh, tool bu am solo boo xam ne képp ku ci nekk war naa xam ne mi ngi ci lu am solo xam ngeen ne xasida yi bind ko rek liggéey boobu mu ci doon liggéey leen saa sallam moo taxoon moom sëriñ mu dem ci géej gi ndax gis ngeen li muy wax ci ci muqaddima bu mag boobu muqaddimal kubra ne wa min wa min asbaabi taxarubi euh, nu mu ko waxee sax euh, wa min asbaabi taxarubi fil baxri barakaatu hadihi al muqaddima wa min asbaabi taxarubi fil baxri barakaatu hadihi al muqaddima nekkat muqaddimatul kubra lim ci façon bi mu koy bind ci ñaan suñu borom mu baax ko mu dem fu am fu mu mën a wéet liggéeyal fa yonent bi sallam ko nangu moo waral ñu ko ci géej moo tax gis ngeen keroog bi ñu koy yóbbu ba mu tollu mu nekkee ci terrain gi dara sant suñu borom ak di ko yéem ne ko yéem naa la ndax li ma la ñaanoon may nga ma ko ba tàggatal ma tubaab bi ñu di ma jël di ma yóbbu ngir bu ma noppee ñu indiwaat ma ndax waxoon nañ ko liggéey bi faaw nga dem foo xam da nga wéet yow rek yaa fay ne boo noppee doog a dellu si muy subhaana man fil barri wal bahri ma ajalal jawaari wa kullan jamaa subhaana man li jaada bi safina fii xidmati li saahibil madina ne yéem naa borom mi nga xam ne moo ma tàggatal gaal gi muy gaal jéeri gi muy train gi bu ma ci yéeg ngir dem liggéeyal yoon science la loole bi muy tollu Louga ci la koy wax te boobu ñi ngi foog ne ñoom ab prisonnier lañ jàpp muy assiru maal abraari xëy na assiru kon yooyu yëpp dana tax rek ñu xam ne képp ku nekk ci xaside yi mi ngi ci lu am solo mu góor góorgóorlu ci kem kàttanam euh, te xam ne may gu ne suñ borom defal na ko ci sëriñ bi hajat xasaidi quluubal anbiya ma al malaikati inda rabbiya di bégal malaayika yi haajat xasaid yi xuluubal xamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala ne xasidaam yi jàng rek bu ñu ko koy def day bégal malaayika yi nga xam ne ñoo gàddu arsh suñu borom yi day bégal mbooleem nit ñi nga xam ne ay ci kumalo laay lañ bokk euh, loo xam ne nee na suñ fu ñu ko waxee mu bégal yónni saa sallam euh, adxaka rabbi rasulallaahi bi xattiyal muxzi aduwallaahi ne suñ borom bégloo na reetaan loo na yónni saa sallam ci sama mbind mi nga xam ne day toroxal seytaane Euh, xam ngeen fu ne wax na fa ne saa bu njëkkatee xas day seetaane day day day day day yooxu day mer day jàmbat dem yoonam euh, iblisu farra shakiya ila siwaaya bakiya ba mu jeex loolu lépp di wane nekkoon képp ku ci nekk na xam ne mi ngi ci lu am solo li ci ëpp solo rek mooy ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu na ci yoon ñu xam ne wérdu maaxuus ak xasida yi du ñaari mbir du ñaari mbir maanaam du ne da ngay ci bii ba bee dañuy mën nañu dañuy boole yëpp ndax yu ci ne daa bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne suñu borom da koo baaxee sëriñ bi ngir mu di ci tarbiya taalibe yi ngir taalibe bi nekk fii dakaar li nga xam ne bu taxawoon ak sëriñ bi ca njaareem wala ca tuubaa wala ca Mbacke Bari noonu la koy defal taxoo xasida ak wirdu maxuus loolu la koy jariñ mooy day defaru te du ko yëg day defalu te du yëg ne kañ la defalu day jékki-jékki yëg ne ñi ko wër ñëpp ñi ngi defalu ci defalu gi mu defaroo defalu Sëriñ Tuubaa noonu la mel ndax gis ngeen ni muy wax ci ne mbindam naabaat kitaabati eh, ani silaahi wal jawalaani li zawi salaahi liñ daan wër daa ko wuti ci ni ñu baax ñi suñu borom defal na ko ci mbindam ba ku ko jot du jaar ngay dem tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallaahu abqa kama agna xam ngeen li ci sëñ bi wax loolu du xaaj du jeex li ci am solo rek mooy nit ki ki ne ci xasida na góorlu ba kem kàttanam ba mu mu mu mu buy jàng mu yem ci liñ jàngalu am na ci xasida yoo xam ne xam ngeen amuñu digalul ci di ko jàng nag kon xër gu ëpp bu mu tax ba dugg ci yenn yi nga xam ne sëñ bi bëggutoon ñu di ko jàng ak it nag na fexe ba li ñu doon wax ci wird na ko am ci xasida mooy na am yum taqoo na am xasida yii moom da koo taqoo bis bu set mu du ko def yeneen yi ci des nag lu mu ci mën a góorgóorlu mu def ci kam kàttanam ndax xam ngeen euh, sëñ bi wax na ci masaalikul jinaan ne euh, wa maa yusafi lqalba wa huwa maa udim minhu wa in qulli la qaala wal xakim ne jëf ji gën a mën a defar xolub jullit mooy jëf ji nga xam ne dafa sax donte dafa néew kon na ku nekk ci ñun rek na fexe ba am xasida yu mu taqool moom yoo xam ne bis bu set lu mu xat-xat dina ko jàng loolu mun a ci murit bi dox ci xasida la bu dee ñi nga xam ne it dañ koy lu ñu mën a fexe ba moytu yàq gi nañ koy def ndax loolu sëriñ bi bañoon na ko lool gis ngeen kooku doon jàng ba ne xidmati ramma te waroon a jàng ramma sëriñ bi da ko dal ci kawam ne ko magum jëmm du liggéey ba noppi nga naan sànni nañ ko ndax ramma xam ngeen li muy firi mooy sànni nañ te ramma ramma mooy firi sànni nañ ramma mooy ñoŋal nañ ko mu waroon a jàng ramma ne ramma mu ne ko nag magum jëmm liggéey ba noppi nga naan sànni nañ liggéey bi ne ko dal ci kawam ndax arab benn baat masque gi ngay soppi rek day soppi ni ñuy waxee xidmati ramma la waroon wax rek mu ne xidmati ramma kon loolu ñi def seen kem kàttan ci di di di xool yax bu baax a baax ndax kuy wut lu baax da ngay xool la ca gën rek kuy durusit mu bàyyi xel ci li ñuy wax adabu zikr rek mooy jublu penku banque say tànk teewlu ànd ak laab boo amee laj ko lañ sax laal ko loolu yëpp ci luy tax tuyaaba yi gën a baax gën a baax la rek kon wirdu maxuus ak xasida ñaari duñu war a boole la ndax yooyu yëpp dafa dugg ci li sëñ bi waxoon suñu borom ne ko hadayta bi di wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi zikri ma salaati wa bil madhi day mel ne loolu lépp sëñ bi da ci bayit woowu da ci tënk mbiram mépp ne suñu borom sama yii yaa ngi ciy jubal nit ñi mooy li ma bind ci tawxiid li ma bind ci fiq li ma bind ci tasawuf ak li ma bind ci xasida te xam ngeen xasida ñett yooyu rek la lu jëm ci zikr mooy lu dox diggante sëriñ bi ak boroomam moo xam da ko ci ñaan moo xam da koy ak lu dox diggante sëriñ bi ak yonent bi salaam loolu ñaari xeet la lu mu ci julli ci moom ak lu mu koy tagg mu tënk ko ci baydu woo ne ko hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi ayaali bi zikri ma salaati wa tënk na ci léppam kon ñu xam ne yooyu noonu yooyu noonu murit bi sañu cee jël benn baay yeneen yi day góorgóorlu ci xam-xam diineem li ko ci góor war góorgóorlu ci xasida góorgóorlu ci jaamu yàlla zikr boobu it xam ngeen wirdu Màhuuz da ci daal di duggaale kon sëñ maam Thierno ginnaaw bu ñu waxee lii rek yaakaar naa mën nañoo tënkee fii di siyaarewaat kilifa yi fi teew yëpp di ko tàmbalee sëñ Abdul Wahab mu sëñ Abib bi nga xam ne mooy kilifa ak jotaay jotaay bi di siyaare waa kuréel gi nga xam ne ñoo taxawal jëf ju màgg ju am solo ji di siyaare it suñu imaam yi nga xam ne ñoo fi ñëw ñu ngi leen di siyaare di leen dalal xëy na bi ñu tàmbul dafa yëg seegutoon dañoo yëg seegutoon waaye ñu ngi leen di siyaare ndax ñoom ñooy ñooy borom barab bi ñooy borom gox bi ñoom ñoo dalaluñ leen sax ñoom ñoo ñuy dalal ñoo ngi leen di siyaare bu baax di jokk mbokk lislaam nga xam ne rek moo dox suñu diggante ak ñoom mbokk googu nga xam ne sëriñ bi digaloon na waa këram gépp ne leen falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah da ngeen ko bu leen ko noonu na ngeen ko jàppee seen bokk almuminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatum wa xayaati xasanaat ne jullit ñu góor ñi ñu jigéen ñi ñi gëm yàlla ñëpp samay mbokk lañ sama dundu lépp yiw la lépp mbaax la lépp teranga la ku mel noonu nag ko suñu borom boole sa lépp ak la war a kon bis bii dugg ci cant googu ñu sant suñu borom rek ci lim ñu booleeg sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax ci guddal gi ak xëy na wax ji bu dee leerut lu ci mat a jubbanti it ñoom sëñ maam Thierno danañ ko mën a jubbanti euh, fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Mamor waxtaan wi yaakaar naa ni mat na sëkk ndax mboolem lu matoon a indi ci werd yi wala lu ci matoon a xam lépp leeral nga ko am na sëñ Ousmane rek sëñ Ousmane Ndiaye mu war a def taaliq ci waxtaan wi incha allah kon ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen gi. mooy képp koo xam ni bëgg naa jël werdu wi muy góor wala muy jigéen muy mag wala muy ndaw mën naa ñëw jël werdu wi werdu wi werdu sëñ Tuubaa moo ko digal mbooleem ñi nga xam ne aju nañ ci moom di góor di jigéen wax ne moom ci boppam mu ngi koy jëfandikoo moom ci boppam da koy jëfandikoo te digal na ko mbooleem kuy góor ak jigéen kon ni ko sëñ Maam Mor waxee mbooleem ko aju ci sëriñ bi rek sëriñ bi digal na la ko te li sëñ Maam Mor wax itam eh, xasida ak eh, werdul maaxuus dañ leen a war a boole ndax werdu wi loo yéex-yéex du la jëlal lu ëpp ñaar fukki minutes vingt minutes boo xawee kii tuuti sax mën nga ko def ci fukki minutes ak juróom boo yéexee mën nga ko def ci ñaar fukki minutes boo yéexee lool mën nga ko def ci fanweeri minutes te loolu sax yàggut loolu suba ak ngoon kese la mooy gannaaw fajar ak gannaaw tàkkusaan bu la rawee mën nga koo fay bu la bu la rawee mën nga koo def ci muxtaar mi bu muxtaar mi jàllee mën nga koo fay su de su demee ba ëpp juróom-ñaari yoon nag yoo xam ne bàyyi nga ko dangay ngay tàmbaliwaat maanaam fay gi mën naa dem ba juróom-ñaari yoon waaye su ko ëppee nag mën ngaa tàmbaliwaat eh, kon waras na cee farlu bu baax a baax jéem koo jël ndax ni ko sëñ Mamour waxee yéene ci jëfandikoo ndigalul sëriñ Tuubaa waaye nag li ci daje ci njariñ kenn xamul nu mu toll wérlu maaxuus bokk na ci tawféex yi gën a rëy ci sëriñ bi maanaam dara féetewu kaw daa kon loolu nañ ci farlu bu baax a baax bala ñoo guddal ñu jox sëriñ maam Ousmane Ndiaye bëggoon nañoo wax sëñ Mamour bi li mu doon waxtaanee lu mu xam la ndax eh, loolu dañ ko fàtte woon ci njëlbeen gi ndax bindkat la sëñ Mamoor bindkat la bind na ci werd wi xam naa sax du ñàkk sëñ Murtada ja yoroon na ko dina ko gën a yaatal ci wakkaana xaqan bu ko defee ñu bari mën cee jot gën ko gën koo leeral ndax ci ci arab la ko bind kon sëñ Murtada xëy na du ñàkk dina ci def ab leeral ñu bari mën a jot ci njariñ loolu kon sëñ Usmaan bismillah bismillah bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin allasi ibtada al insana bi nicmatihi wa sawara fi l arxam bi hikmati wa usalli wa usallim ala man buisa wa lam yubas illa rahmatul alamin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnati ila yawmi din wa baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax den ziyaara xam naa ne wax ji du gudd ndax lu leer moom boo ca bëggee Eh, dugalaat ay yeneen day lëndam wax dëgg yàlla sëriñ bi sëñ Maam Moor ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko jaajëfal ci déplacement bi nga xam ne def na ko jóge Touba ba fii muy lu am am solo wax dëgg yàlla ci ñun di lu rëy ngir leeral lii di wérdul Manxuus bu ko defee bala may jàll foofu rek damay sant ñi nga xam ne mooy waa yoof ci boppam waa dëkk yoof bi kilifa yi moo xam tàmbale ko ci Mouhamed Ndoye al imam mi nga xam ne mën naa wax ne imaam Ibrahima Baas mii ma féetee sama càmmooy moo ko fi teewal ak mbooleem ak mu am Ahmed eh, Ibrahima Mohamed Mbeng mi ngi ci jataay bi imaam Chérif dem na léegi ci mbokk woo goo xam ne bokk nañ ko fii ci dëkk bi ak ñoom mu rafet lool ak mbooleem borom ndomba tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla macha allah bu ko defee kon imaam yi ñu leen di gërëm bu baax di leen ziyaara ci wuy si gi ñu wuyu fii ci nga xam ne mooy jataay bi moom mii dana yëkkati xam naa ne ci turu seen kàddu ndax mooy vice président li nga xam ne mooy mbooloo mi ginnaaw imaam Gàtt Diouf mi président bi moom mi moo ci topp moom imaam Ibrahim Baas moom Soudan la génnee bu defee mbokk yi mu mel ni e, li sëriñ bi doon wax dama ci xam rek tuuti ne ndekete doomu aadama bu fekkee dafa bëgg a yéeg jëm ca borom subhaanahu wa taala ndeke mënul ñàkk mu am dara ci aw wird te wird kat li muy tegtale mooy li ma dégg ci waxam mooy lu coobarewu la nit ki daf koy neex mu jël ko ngir di ci yéeg jëm ca boroomam waaye nag soo xasee jël ba noppi nag ah dootu doonati mbir moo xam ne rek dalay neex nga def dalay neex nga bàyyi déedéet day mujj mel ni nazar xam nga ab jullit bu nazaree dara day daal di mujj nekk farata ci moom kon nag yow mi góorgóorlu ba jël wirdu wi sëriñ bi leeral na la ci bu ko ragal ndax dégg nga nee na sart bi sart yi jafewut kon nanga ko jëlee ci ndigal waaye koo xam ne mën na koo joxe moom na la ko jox kon sart yi euh, taxu ko bari lool ba noppi nga di ko def suba ngoon loolu jafewut yeneen sart mu leeral ne jullit bu ne la war mbokk yi fardul ni mooy julli juróom rawatina di ko defee ca mbooloo ma loolu ñépp la war jàng alxuraan noonu sëriñ bi da cee waxoon ne kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatan li xëyri dikkirin xadur sim bépp murid boo xam ne dafa wax ne ci sëriñ bi nga aju nga ne ko waaw mu ne la kon dénk naa la ngay saxoo jàng alxuraan bis bu ne sëriñ bi it wax na la ne la sasuñ la ne la ñaari isib wala ñett waaye benn sax boo ko manee nga def ko soo demee ba lott loola nga def lu ko yées ndax yonent bi alayhi salaam am na xadis bu mu wax ne alxuraan ci boppam ñi ko man lool bu boobaa ñoom dañuy mel ni ñi nga xam ne ñooy euh, malaayika yi nga xam ne ñooy malaayika yi jege suñu borom subhaanahu wa ki koy jàng di ko ijji dana am ñaari yool yoolu ijji bi mu koy jàng ak yoolu coono bi mu ci am ak yoolu ijji bi nga xam ne ba muy wax ngëneel alxuraan dafa wax ne waxuma alif laam miim araf waaye damaa wax ne alif araf laam araf miim bu ci ne da koy fay kon nag alxuraan juuju ngay jàng mu nekk sart bariwul loolu lu yomba yomb la bu ko defee nga mën a jëfandikoo ngëneel lii nga xam ne yërmande yàlla la yàlla wàcc ci sëriñ bi kon loolu dégg naa ko ci moom mbokk yi kon nañ góorgóorlu ci loolu bu baax a baax teyit sart yi ba teyit pas-pas kon jullit bi faw mu góorgóorlu ci pas-pas digganteem ak boroomam wax na ko waaye ginnaaw pas-pas bi it nga góorlu kon ci fardu ay ni mooy di julli juróom di ko defee ca mbooloo ma waaye boo demee bay wird tam ngay góor góorgóorlu jublu penk ak di ko teewlu yu mel noonu daanaka moom la ci wax ba ca la ci gën a am solo mooy heure bi ni mu ko guddalee ni xam naa ne bopp yu bari desoon naa leeree ci ñoom ndax nee na la ginnaaw boo jullee suba wala lu njëkk suba tuuti wirdu yi mën naa dem ba ca tusbaar kon loolu wax dëgg yàlla diggante boobu nga jaayante fekk sa boroom ñaar fukki minit loolu bariwul ginnaaw tàkkusaan it mu ne la day dem ba gewe kon loolu yaakaar naa ne yomb na waaye nag la gën mooy boo jullee tàkkusaan rek nga fas ne koo def li nga xam ne mooy euh, ñaar fukki minute yooyu ba ca toppit mooy di def at tahajjud at tahajjud nag ak xiyaamu layli wuute na xiyaamu layli moom bu ñu xasee julli gewe rek xiyaamu di taxaw na waaye at tahajjud mooy faaw da ngay nelaw tuuti loolu mu ëpp ngëneel wax na ko ci biir te min ni mu waxee soo jëlee wérdu bi dalay pousser di la pousser ba nga sax ci juróom loo mënutoon di ko saxal rawatina di dem ca mbooloo ma di ko fa defee waaye di la pousser di la pousser ba nga defar sa jikko waaye di la pousser ba nit ki xel mi di dal allah bi dikri lay tatmini qulub kon xol yi mi ngi dalee ci tudd yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi sëriñ bi indil nañu lu ama am solo kon nag ñoo ngi koy ñaanal suñ boroom waxtu wi du ñu may ñu taañaañal waaye loolu rek lañ ci doon barkeelu bu ko defee jox al imaam Ibrahima Baas bu ko defee mu wax ci li dégg ci mbir mi bu ko defee ñoo ngi koy wax tafadal ya fadilat imam bismillah